wax gaay ñun opposé ñu ja jafé faaw ngay def don ñu ja jafé faaw ngay def de soi pour la patrie ah opposition bes bi lay waxal da ngay def de soi pour la patrie gaay ak ni suba ba légui mbéd ndakaru yépp ñing koy balé motax opposé ñu mu xawa jafé parce que faaw ngay def de soi pour la patrie waaw sama wajah ini ni Amar ya li groupe groupe ko am moro opposé ñu jafe doole soi pour la patrie yéen waa opposition bi da ngeen di jéem a jàng lan mooy don de pour la patrie ba pare doog ñoo mën a opposé wu ñu ngi fii ci rond point 26 rond point bi fépp bale nan ko ak élite patriote waaw ak élite patriote bi ñoom ñëpp maire Jamil Sané ñoom ñëpp a ñëw ñu opposé ñu noonu la jafee Thank you. maire bi kontaan na ci trop vraiment ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal fii soo gisee fii fépp moo tax opposé ñu jaa jafe wër naa alxuraan opposé ñu a jafe. baax di leen ziare maa ngi nii taxaw ak Omar Rémy di responsable moo si li nga xamante si ni di def don de soi pour la patrie ko doon def bi nekkee opposition. moo tax ma ne opposé ñu day xaw a jafe ndax pour nga opposé ñu ngay def don de pour la patrie te lii dañ ko tàmm dañu ko miin ci jamono yi nekk ci opposition moo tax bi ñu nekkee fii jaaxaluñu élite patriote dajale ay moyenam alalam tout ça ñëw di bale rond-point yi tey jii suñu frère ñëw teew ci ana lan nga yëg ak ak ak ak lan ngay soññ waa élite patriote man damay sant damay sant parce si bi ñu jëm hmm. ba ñuy xeex ko mooy ne gëm-gëm la. gëm-gëm la. te lii rek la ñu wax Sénégal yi mooy ñëpp koy ànd defar suñu ci wàllu kiw ñu ñëw ne si kaw ñu ñëw ne si suuf. Hmm. ñun ñëpp ñëw sumb te xam ne réew mi ñun ñëpp ko moom. Hmm. dañ ko war dañ ko war a jubal fexe daal di ñëw fii jub. sax ci lay tàmbalee. Ah, mu ñu hmm. xool daal ñu àndee si lii. ànd si fexe ndaw ñi tamit bu ñu defaree seen dëkku ba pare mën a am liggéey mën a lekk ba suuf mën a feebar faj mën a am jàng ñun daal ñu ngi kontaan di kontaan si élite di kontaan si mooraax ñi mu am ñëpp kontaan si team dañuy gagné. ah di bëgg tamit si làmmiñu daaru di bëgg tamit si yaa Fatima ak gaa yu baax yëpp. gaa yu la de. mënoon ngeen toog ne ne meew ñu leen ngeen bàyyi. mënoon ngeen toog ne nangam waaye xam ngeen ne liggéey bi ci wàllu jege président wala jege premier ministre waaye fay projet bi soxla rek ngeen ne fa te yéen a ngi si. yàlla na yàlla incha allah